ku yarul woon ku am fulla ku am fayda ku mën li muy def mais c'est malheureux quoi nous les artistes comédiens yi di Sénégal nous les acteurs culturels dafa am loo xam ne dafa manqué ci ñun te il faut que nag ñu mobiliser wu ñun artistes yi jug ci pour ñu mën a gañe bi nga xam ne moom la ñu war a mën a am ngir teel suñu waajur ak suñu njaboot fulla borom moo koy may boppam Dakar fu laa koy jaay bu fekkee ni ku ñëw rek ñam bu euh, bu yàggee bi jeex tàkk waaye ñun artistes comédiens yi dañu war a mobiliser ji ma am ci kër yi am ci oto yi am ay métiers ngir buñ fa jigee suñu njaboot mën a mën a nekk ci jàmm ak salaam waaye tey jii amuñu lu ñu wax kenn ndax tey jii euh, télévision yu bari ñoo ngi jël acteurs culturels yi di leen embaucher di leen fay dañ dañ leen ci remercier di leen ci sant bu baax mais li ma mën a wax daal ci gàttal mooy tey ji bés bi war na wane lu ne su ma soxla nag buñ ci jógee ñun artiste Sénégal yëpp ñu dajoo la waxtaan waxtaanu biir nekk comme que génne ko ci Sénégal ñëpp xam ne artistes yi kat tey jii dañoo war a jëmbat fula nag pour am dara ci askan wi loolu daal mooy lii ma gën a ñor. parce que oyofam. Euh, bëggoon. bëggal doomu aadama yi. Mm-hmm. addunaam yëpp mhm. mu jël ko di bëggal doomu aadama doo gis njaayee mukk muy ñëw nga ni nitu fitna nga ne ba pare bëggoon Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul kooku moom du ma jóg di ko wax bëggoon xas bi sëñ Tuubaa yi mhm. lu mu tuuti tuuti alxuraan mi ngi ci dënn yooyu sax dañ ci daan werante man ak moom parce ñaari doomu daara lañu ñu waxee maa ngi moom léeg ñu dugg ci xasida yi léeg-léeg ñu dugg ci alxuraan ji léeg-léeg ñu dugg ci leneen ak leneen donc mu doonoon ànd boo xam ne daal tey jii hmm. ñëpp wér nañ waaye man tey wér nañ sa waay la woon waaw sama waay la waxtaan rek matul deux semaines waaw sama lépp la woon sama la woon si gis sama lépp la woon vraiment hmm. tey waaw yëg naa loo xam ne daal métti na ko waaw ñaanal rek waaw yàlla jégal ci tàmbali mi ak ni ngeen doon euh, nekkee ci Kouthia yooyu nan nga ci mën a wax waaw tàmbali bu rafet rek parce que moom bi mu ñëwee ci bi mu jógee ci Kouthia Show man maa ko njëkk a dalal émission seetu bi waaw ñuy def nag émission bu bu rafet foofu sénégalais yëpp apprécier ko mais ma liir ci moom daal ni kii borom xol bu rafet la waaw bu rafet la yor boole ko vraiment yéen ñëpp jàmm di wax jàmm di ko dox donc nag ku mel noonu euh, li la war rek mooy tey jii bu ko fi suñu borom jëlee nga ñëw taxawu ko taxaw bu rafet. kon daal loolu moo doon tànk yi tey ñu taxawu suñu xarit suñu doomu ndey di ko ñaanal nag yàlla jéggal ko tàbbal ko jëm. acteur culturel yéen ñi nga xamante ne ngi nekk si métier bi est-ce tamit tey jotul à chaque fois lii di répété wu seen. waaw ñu ngi leen di ziare. Euh, tey ngeen ñëw bu nga si Ndiaye ci këram gu mujj. waaw indi ko fii nga xamante ne moom moo di Yoff Layeen. Mhm. lan nga ñu mën a wax ci jëmm ju baax la nit la koo xamee nit ku baax li mu fi wax lépp du génn dafa baax. nit la koo xam ne wax dëgg yàlla ku jullit la woon moo ëpp solo ci lépp parce lu nu mën a wax te waxuñu ne jullit la woon yaakaar naa dañuy bàyyi lu bari waaye li nu mën a sedd daal mooy nit la koo xamee jullit la woon te yaakaar ne ku bëgg doomu aadama la nit ku yaatu xol la woon kon donc tey lii mu am nii ak ñi ko ñëw fekk si ñëpp xolam rek la ko suñu boroom fay tey ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana na ko malaaka miir mi teeru waaye denc nañ ko foo xamee am nañ ci yaakaar yal na ko yàlla xaaraa jël waaw loolu laa amoon ci moom ay kàddu yoo xam ne dinaa ko wax mu doon nit koo xamee man moom sama xarit la woon yàlla dogal mu doon nit koo xamee dafa ma bëggoon trop ci audio yi may def nii dañ ci doon waxtaan mu ne ma man dama laa bëgg loolu nag yàlla moo koy def te cofeel bi mu am ci man bu ko raw laa amoon ci moom tey jii hmm? hmm. ko waaw yëgoon naa feebaram su ma la waxee yëguma feebaram tax euh, dama koy fekki waaye xam nga feebar moo doon loo xam ne bi la war a yóbbu bu ko réew mi yëgoon terewul boo waree dem allah kulli alin da ngay dem ñun li liñ ko mënal rek mooy gunge ko ñaanal ko tey bu ñu yoroon wér fa mu tëdd dafay jug waaye nag doomu adama euh, jaam ak pexem mais yàlla ma ak dogalam lii la yàlla dogal dañuy def lu nangu ko ndax nit bu fekkee sunu borom dogal na ay dogalam lenn rek nga mën a deful lu nangu dogal bi te nangu na dogal bi di ñaan yàlla xaari ko man mooy. Euh, nitu nit la nitu àdduna la nitu ñëpp la kon tey bu amee ci suñu suñu ñëpp la war kon koy sant yàlla ay lii moo la ñu ñaan nag yal na ko bu mu jugee fa mu dem yàlla na ko guddal mu doon ku baax ku mën a jox sa nit man lal bi ma doon tëdd fii moom moo ko defal moom moo ko defal wallaay la si muy sama xaritu bopp ñu ànd bokk liggéey bi doon liggéey lépp nag rafet euh, ci koor gi rek la mu mujj léegi man euh, koy ñaan euh, ku ku ku nit ñi ku bëgg diine la doo xam fu mu bokk doo xam fu mu bokk kon fu baax dem na di ko ñaanal yàlla na ko danga koy yëgoon nañ ko yëgoon nañ ko bu baax ba si jokkante ci ci ci euh, koor gi rek ñu si doon déggante euh, yëgoon nañ ko waaw xam moom euh, fii la ñu dëkk ñu nekk day wax lu ko neex ko jege xamoon na ni ni am na taxawu te te te damay ñaan rek julli di ñun lañu bëggante julli day bëgg moroomu jullitam nit yàlla rek la. ñoo ngi leen di gërëm di leen baalu àq di leen baal di rafetlu seen taxawaay yéen ñëpp parce que ki dem tey dafa foor ci ñun foor boo xam ni danoo am mbetteel ak naqar waaye yàlla bu jëlee. kenn du warante ak suñu borom maa leen koy jaale di ko jaale Sénégal yëpp di rafet njort di rafet njort ndax ki fi jógee tey lan moo doon liggéeyal liggéeyam moo doon bégal doomu aadama yi te ku bégal doomu aadama yàlla bégal la ndax yàlla li mu bind doomu aadama la ci gën a fonk mu doon nit koo xam ni ku teeyoon la ku amoon personnalité ku rafetoon xol saa yu ko gisee da ngay reetaan nit ku ku mel noonu nag bu demee ñun dañuy ñaanal suñu bopp rek waaye moom ñaanal na boppam maa ngi koy jaalee waa groupe Futur Média fa nga xam ne fa lay liggéeyee di ci jiital ci njaal gi suñu président président Youssou Ndour ak ki nga xam ni mooy Birane ak njaga ak ki nga xam ni mooy Bouba ak personnel bi yëpp ndax bi ma déggee ci yéen internet bi per bu xar def yenn témoignage yi dama kontaan ndax nit bu nekkee ci yow di liggéey euh, am ay xat-xat am dog-dog nga topp ci jàpp ci ba yàlla ñëw def li gën c'est à saluer ndax ñu. maa ngi lay ziar soxna Khoudia foo ko fekk mi ngi wetaan loo doomu aadama yi ko fekk mi ngi xool lu bëggal nit mu di ko def ñun man bi ma ñëwee sama xel dafa dal ndax képp ku nit ku baax boo ñëwee fekk nga ko fi ñëpp a bàyyi sa yitte ndax nag lu mu lebaloon doomu aadama yi kon nag àdduna dara jarul dara lii rek wane na ne nit loo mënti am. bàyyi ko ginnaaw te dëgmal suñu borom ndax yàlla rek ay dëgg moo tax nag suñu xel dal vraiment dañ koy ñaanal fa mu jëm yàlla ko gënal fii mu jóge ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam